daa iqtidaaul musaafiri royuk aji tukki ja bil muqiimi ci aji sax wa bil xaksi ak ci safaan ba saxiixun aji wér la laa lakinnahu waaye moom yukrahu def na ko sib nee ngay tukki ba noppi di wàññi dem fekk koo xam tukkiwut day matal ngay roy ci moom mbaa safaan bi yow dangay matal fekk ki wàññi nga roy ci moom waaw loolu lenn ci taamuwut lu ci nekk sib nañ ko waaw yow ngay wàññi roy ci ko wàññiwut mbaa yow ngay matal roy ci koy wàññi lu mu ci mën doon rek sib nañ ko watata ak kadu dana feddaliku alkarahatu sib ga fi iqtidaa'il musaafiri ci royub aji tukki ja bil muqiimi ci aji sax ne liñ ci gën a bañ nag mooy yow ngay tukki ba noppi di wàññi ah, sa sunna mooy wàññi ngay roy ci koo xam ne day matal su boobaa dangay ànd ak moom ci matal ga waaw ah, loolu nga xam ko bu baax bu fekkee da ngay tukki ñu digal la wàññi nga fekk koo xam ne wàññiwut ngay roy ci moom su boobaa da nga topp rek ca matal ga waaye doo wàññeeti mooy fay niqtadaa ndem roy na bii ci moom lasimahoo kon war ko ittibaahuhoo toppam nga wala ihaadata te déetu baamu alay di ko war ndegam dangaa yéen woon matal ni moom daal di ànd ak moom mooy matal daal di matal rek kon sa jaan wàcc na li nga def nag taamuwuñ ko sib nañ ko lool ndax bàyyi nga saw yoon mu wàññi ga waaye du te julli gi baax koy niqtadaa ndem roy na mu aji sax bihi ci aju tukki looloo gën a baax moo xaw a tane fa kullun kenn ku ne ala sunnati nekk na ci aw yoonam fa yusalli day julli al musaafiru aji tukki ja fardahu farataam fa ida sallama ndem salmal na min rakxatay ni bàyyi ko ci ñaari rakka ataa kon dikkee al muqiimu aji sax ja bi ma ci la nga xam ne baqiya des na min salaatihi ci julleem ah loolu moom moo xaw a tane maanaam ki nga xaw ne mooy wàññi doon ilimaan daal di jiite yow mi matal nga ànd ak moom léegi moom mi lay jiite tey tey wàññi bu amee ñaar moom daal di sëlmal ndax loolu mooy ndigalam yow nga jub dolliwaat ñaar daal di li def ñeent xam ne kenn bàyyiwu ci saw yoon naa loolu moom mu xaw a tane sib nañ ko nag waaye moo gën ba ca des faslun wa sifatul jamhi melaw boole bay na salaatay ni diggante yaari julli al mushtarakatay ni yeddiwuñ bokkaale fil waqti ci waxtu ruxsatun ak yoramal la ida na ndem nekk na fil barri ci tukkib jéeri doonal baxari ci lu géej waaw nee na daañu la may yaari julli bokk waxtu te mooy tisbaar takkusaan ci ak wet ak timis ak gee ci ak wet daañu la may booy tukki ci suuf si génn nañ ci booy tukki ci ndox mi daañu la may nga boole leen julleendoo leen ñoom ñaar niki nga boole ndoo benn yoon tisbaar takkusaan mbaa nga boole ndoo timis ak gee julleendoo leen ci ci ne mu koy bëgg a waxee fa isa salat ndem rëcc na asam su jant ba xalal musaafiri ci aju tukki ji wax nga te moom filman xali nekk na ci béréb aw waxoo wala nga xam ni moom raakibun aji war la ba nawaate mu yéene an musoo la wàcc baxtal xuróob bi ci gannaaw soxu jant bi jamaxa kon kon mu daal di boole bay na salaata yu diggante yaari julli ya jamaxan ak boole suuri yan gi ko jóg melo boole melo mooy ak boole la nii ci saaxir waaye ci dëgg-dëgg dug boole ndax ku ci nekk dugg nga ci sa waxtu moo tax mu ne yooq yoon day dugal ak zuhra tisbaar fii aaxiri waqtiha ci mujj waxtoom wa wal mu dugal takkusaan fii awali waqtiha ci njëlbeen waxtoom nee na bu jant bi rëccee fekk la ci béréb boo xam ne moom du béréb boo wàcc danga faa jaar rek di jàll mbaa jant bi rëcc mu tisbaar jot fekk la sax ci yoon yi ngay dem kon dañuy seet bu fekkee dangaa wax ne man gannaaw bu jant bi sooyee laay wàcc kon daa mel yow nar laa julli génn waxtu ci waxtoom nar laa julli génn julli ci waxtoom ndax xam nga gannaaw bu jant bi sooyee moom day fekk yaari waxtu yëpp jàll ci tisbaar ak takkusaan mun la loolu moom sañoo ko léegi kon say boo nga wéy rek ba nga xam ne takkusaan mi ngi bëgg a jot yaa ngi ci mujjug tisbaar su boobaa nga daal di wàcc gaaw julli tisbaar ci mujjug waxtoom gaaw julli takkusaan ci njëlbeen waxtoom xam ne kon léegi da ngay wéy rek ba takkusaan jege nga daal di wàcc julli tisbaar boo noppee takkusaan jot nga sësale ko ci fisaasa loolu nag moo tax ñu la booleeg melo rek la waaye ci dëgg-dëgg du boole ndax julli gu ne ci waxtoom nga ko julli dangaa yeexee tisbaar ba ca mujjug muxtaaram gaawi saan ci njëlbéenu muxtaaram loolu nag ñëpp sañ na ko yow mi tukkiwul sax mën nga ko soo ko defee daal da nga ñàkk tuyaaba yi boo teel na julli tisbaar loolu dong rek ngay ñàkk boo teel na julli ca ca njëlbéenu waxtoom ndax xam nga julli ci njëlbéenu waxtu dafa gën moo tax ngay ngay ñàkk boo ko defee te fekk tukkiwoo waaye du tax nga am ci bakkaar ndax bi ne ñëw na ci muxtaaram mm-hmm. mooy wakkasaani ki ni isa nawaan deen yéene na annu la wàcc bax dal isfiraari ci gannaaw gelub suuf si waxatul xuroo ak njëkk soxu jant bi maanaam ki mu doon wax léegi nga xam ne ba tisbaar di jot da fekk rek taxaw ci béréb boo xam ne wàccu fa waaye dafa taxaw xëy na di wëgg mu war wala muy jënd gura wala yu demee noonu waaye wacc fa mbaa boog ba tisbaar di jot fekk ko sax mu nekk ci woon wi di dem kooku lim la waxoon léegi mooy bu fekkee daa wax ni bala maa wàcc gannaaw bu jant bi soxee lay doon kon leeral nan ko loolu kenn du ko may dañ koy wax ne ko kon defal boole gin weesu léegi muy boole goo xam ne melo bi rek moo di boole waaye ci dëgg-dëgg du boole defe naa leer na la bu baax li wax nag léegi mooy bu fekkee daa wax ne fas na yéene wàcc balaa jant bee so waaye day fekk nag booba takku takkusaan jàll xam ne baax dal ispiraar la wax ni borom téere bi waxe ba tey nee na des ko wax ne ko dangay boole rek boole melo li nga weesu léegi mooy bàyyi ba takkusaan di bëgg a jot nga daal di gaaw wàcc julli tisbaar boo noppee takkusaan jot moom itam ku ne nekk ci waxtoom waaye nag jàpp li gën a wóor li gën a wóor mooy kooku daañu ko may mu wéy rek ba waxtoo mi wàcc nga xam ne mooy fekk muxtaarum takkusaan jàll su boobaa nag mu daal di boole julli ñaari julli yëpp muy tisbaar ak takkusaan nga xam ne ñoom ñëpp da leen a julli ci seen daroor yi ndax bul fàtte ne tisbaar ak takkusaan boo ko si agsi ci daroor yu takkusaan rek ñoom ñaar ñooy ànd daroor yi ba bi so mbaa boog bi des loo mën a jullee wenn waxtu nit ñu war koo jagleel takkusaan kon jàppal ni daal boo nekkoon ci yoon wi di tukki tisbaar jotale ci yoon wi yaa ngi dem nii waaye fas nga yéene wàcc nag gannaaw bu takkusaani suuf jotee te loolu mooy isfiraar xam loolu day fekk muxtaarum takkusaan jàll hmm. kon daañu la may nga wéy rek bañ a julli tisbaar wéy bu booba rek soo wàccee daal julliyaar yëpp rek boole tisbaar ak takkusaan xam ne kenn ku ci nekk ci daroor yoom nga ko julli waaye loolu may nañ la ko ndax tukki bi tax ñu may la ko kon loolu mooy ki nga xam ne jant bi dafa rëcc fekk mu taxaw ci béréb di naan wala yu dem noonu waaye wàccut wala mu nekk ci yoon wi dem kon loolu lañ ko may mu des nag ki nga xam ne moom bu jant bi rëcc muy tisbaar jot da koo fekk mu wàcc ci béréb dafa fas bu jógaatee ba war moom balaa wàcc rek jant bi dafa so waaw kooku moom daañu ko may mu daal di boole julli yaar yëpp fi saasa day julli tisbaar ba noppee teg ci takkusaan fi saasa nga xam ne jiital na takkusaan te waxtoom ñëwagut waaye loolu may nañ ko ko ngir tukki bi kooku nag bu fekkoon daa wax ne fas na maa yéene wàcc balaa muxtaarum takkusaan a jeex dañ koy wax ne ko kon yow doo sañee jiital takkusaan ndegam tisbaar moom jote na la ci béréb bii nga wàcc moom julli ko takkusaan tam ndegam nee nga da wàcc balaa muxtaaram a jeex kon na nga koy yeexe ba wàcc boo wàccee daal koy julli ci muxtaaram ndax yow amoo ngànt ci googu wàll bu fekkee ne nag léegi daa wax ne gannaaw bu muxtaarum takkusaan jeexee kat lay wàcc nga xam ne kon narta julli takkusaan ci muxtaaram ci daroor yoom la ko nar a jullee ñu ne ko kon yow lu la ci neex rek def bu la neexee ba jullee tisbaar léegi nga far julli takkusaan fi saa su mu sës ci bu nga ne bu wàcc ca daru réewam dal ko ciy julli loola nag moo gën ndax loola mooy daru réewam dëgg-dëgg bul fàtte ne wax yi ñu wax yépp nag kuy tukki war daa ba moo tax ñuy wax waaye ku war leneen lu bokkut ak daa ba bokkul ci lii ñuy wax lépp daa ba xam nga ko mooy lu mel ne fas bax la mbaam gëléem am na nag boroom saraa yu ci boole saxaar ne boo dee tukki war saxaar itam mën ko ndax borom xam-xam yi léegi daañu ci boole oto wala avion loolu nañ ko seet ba xam ndax xam naa ne jamono day dox rekk moom. Ah. mel na ni sax gisoon naa ñenn ci borom ñi nur ñi xam-xam ñu def ko. danaa mën nga koo takk su fekkee ne daal léegi jant bi dafa rëcc mooy tisbaar jot daal fekk la ci béréb nga wàcc fa yow mi tukki nga fas yéene boo jógaatee nag. bala ngaa wàcc moxtaarum takkusaan dafa jàll kon bu la neexee far boole tisbaar ak takkusaan bu la neexee itam bàyyi takkusaan moom ba wàcc door koo julli ci daroo yoom ndax naroo koo julli ci moxtaaram te loolu sañ nga ko loolu nag moo gën ba tey nga di ko jiital léegi léegi waaye na bu la neexee jiital ko léegi léegi boole ko tisbaar mhm. kon li ma wax léegi ma tënkaat ko ndax mu yomb jàpp ci yow dañoo wax ne bu fekkee da ngay tukki tisbaar jot fekk la nga nekk ci yoon wi dem mbaa taxaw nga ci béréb waaye wàccoo fa daa am soxla doo faj rek di jàll waaye wàccoo kon dañuy seet bu fekkee dangaa wax ne fas ma yéene wàcc lu may jant bi daa so ba noppi dañ lay wax ne la kon loolu moom duñ la ko may moom kon saye boo dem rek bu takkusaan di bëgg a jot nga wàcc daal di gaaw waajal tisbaar julli ko ci mujjug muxtaaram takkusaan jot nga daal di ko julli ci njëlbeenu muxtaaram daal di jàll ci soo yoon loolu lañ lay may waaye duñ la maye duñ la may yaari julli yëpp nga bàyyi leen ba seen waxtu yépp jàll nga door leen a fay déedéet ba ca des nag mooy bu fekkee da ngaa wax ne fas na ma yéenee wàcc gannaaw bu muxtaarum takkusaan jàllee gannaaw muxtaarum takkusaan jàllee laa fas yéene wàcc hmm. kooku dañ lay wax ne la kon bu la neexee nga bàyyi ba booba maanaam ba muxtaarum takkusaan jot nga door a wàcc soo wàccee nag booba nga boole daal di julli tisbaaru takkusaan yaar yëpp benn yoon nga xam ne kon tisbaar moom yeexe nga ko ba boole kook takkusaan ñoom ñëpp nga boole leen julli ci seen daroor yi loolu nag tukki bee tax ñu may la ko loolu moom daañu la ko may kon sañ nga ko Hmm. loolu mooy benn bi ci des nag mooy bi tisbaar di jot dalaa fekk nga wàcc ci béréb nekk ngay noppalu waaye moom daal wàcc nga moom nekk fekkuloo ci yoon fekkuloo ngay taxaw rek di faj aajo jàll daa fekk nga wàcc bu wér a wér tisbaar nag mooy jot booba kooku dañuy seet bu fekkee danga wax ne man day gannaaw bu timis jotee laa bëgg a wàcc kon yow tukki bi dana tax ñu may la nga julli tisbaar fi saasa tekki takkusaan fi saasa jiital ko nga xam ne takkusaan moom jotagut tisbaar rek ay door a jot ay daañu may nga boole yaar yëpp bu fekkee dangaa wax ne nag fas na maa yéene wàcc ci jamono yi muxtaarum takkusaan mooy balaa muxtaarum takkusaan jeex danaa wàcc dañ lay wax ne la kon yow kat doo sañ jiital léegi takkusaan kon tisbaar dong ngay sañ a julli takkusaan na nga bàyyi ko ba ca waxtoom boo wàccee ndax na nga wàcc ci waxtoom kon yow amoo ngànt kon julli tisbaar dong boo agsee ci wàcc nag ci moxtaarum takkusaan nag nga daal di ko ciy julli mhm. bu fekkee ne nag danga wax ne man day gannaaw bu moxtaarum takkusaan jàllee digganteem ak jant bi so laa nar wàcc ah dañ lay wax ne la kon yow dañ lay tànn loo ci takkusaan takkusaan ndegam naroo koo julli ci waxtoo moom bu la neexee daal koy boole léegi ak tisbaar mu noppal la bu la neexee itam na nga bàyyi ko ba wàcc ci daroori yoom door koo julli moom loo ci def rek baax na waaye la gën nag mooy ndegam na nga wàcc ci daroori yoom nga bañ koo jullee léegi te bàyyi ba wàcc ci daroori yoom ba su boobaa nag nga door koo julli loolu moo gën ba mu tuddee rek nag yaari julli yu bokkaale waxtu waxan naa ne dana dugal tisbaar ak takkusaan dana dugal ba tey timis ak gee leeral nanu mbirum tisbaar ak takkusaan mu des nag timis ak gee timis ak gee it noonu la bu fekkee ne jant bi dafa sox fekk la nga nekk ci yoon wi dem te nga xam ne dangaa dogu ci bala maa wàcc gannaaw bu fajar fenkee lay doon te xam nga ne moom bu fajar fenkee timis ak gee seen waxtu yëpp day jàll nga xam ne fay bor dong moo ci des ñun la déedéet loolu kenn du la ko may kenn du la may ngaw yi rek bañ a julli timis ak gee ba fajar fenk di ko fay bor déedéet moo wàccee fay ko déedéet dañ lay wax ne la léegi kon ngay xaar ba muxtaarum timis di bëgg a jeex gee jege si su ko defee nga daal di wàcc daal di julli timis ci mujjug muxtaaram gee jot nga julli ko ci njëlbeenu muxtaaram muy boole gi ñu boo gi ñu tuddee jam xan suuri yan maanaam boole goo xam ne melaw yi rek la ta leeraloon ko léegi ca dëgg-dëgg du boole ndax kenn ku ne julli nañ ko ci muxtaaram loolu mu ngay sañ bu fekkee ne danga wax ne jant bi sono fi mu toll nii maa ngi ci yoon wi waaye fas naa yéene balaa fajara fenk danaa wàcc mooy daal ci dërëriwu gee laa bëgg wàcc te xam nga dara riw gee mook timis ñoo ko bokkale ndax boo xasee àgg si ci fi muxtaarum timis yam rek ba gee tàmbalee fa nga wéy nag ba nga xam ne fa la muxtaarum gee xam nga ñooy daal di ànd dara riw ñoom ñaar ba fajar fenk kon nag bu fekkee da wax ne ci dara riw gee laa fas yéene wàcc waaw su boobaa kon daañu la may nga yéexee timis bañ koo julli fa saasa dem ba wàcc rek boo wàccee far julliyaar yëpp timis ak gee nga xam ne kenn ku nekk ci dara réewam nga ko julli loolu tukki bee tax ñu may la ko xam ne kenn ci ñoom ñaar ñoom ñaar ci muxtaaram ñëpp da nga leen a julli ci seen daroor yi loolu sañ nga ko ba ci des nag mooy bu jant bi so dafa fekk ci biir tukki bi nga wàcc ci ab bërëb waaw nga fas nag boo jógaatee moom ba war bala ngaa wàcc gannaaw bu fajar fenkee lay doon su boobaa moom daañu la may nga julli timis fi saasa dal ciy susale géeye fi saasay saasa dal julli yaar yëpp benn yoon mu daal lay noppal bu fekkee nag fas nga yéenee wàcc ci muxtaarum gee nag dañ lay wax ne rek kon gee moom doo ko sañ julli fi saasa ndax yow amoo ngànt ndegam nee nga ci muxtaaram laa fas yéenee wàcc moom gee kon na ngay julli timis dong yem ci soo agsee ci muxtaarum gee bu wàcc nag nga door a julli gee mhm. bu fekkee dangaa wax bu fekkee dangaa wax ne nag du ma wàcc ci muxtaarum gee gannaaw bu muxtaarum gee jeexee digganteem ak fajar lay wàcc dañ lay wax ne kon dañ lay tànn rek bu la neexee bu jullee timis léegi nga far ci boole gee fi saasa ndax ndegam gee naroo ko julli ci muxtaaram kon sañ nga koo jiital léegi boo jullee timis rek dal ci susali gee bu la neexee itam nag bàyyi ba wàcc ci daroor yoom soo wàccee ci daroor yoom digganteem ak fajar nga daal di koy julli loolu nag moo gën nga yéexee ko bañ koo boole timis fi saasa te bàyyi ba ca daroor yu moo ba nga wàcc door koo julli loolu mooy gën waaw defe naa leeral boobu baax na ci loolu ndax jëmmi yaxub téere bi ci boppam amut googu leeral waaye juma dana sañ a boole baynal maxrib bi diggante timis wala xisaay ak gee lil matari ngir taw wax doxo moom rek aw maxa dulmati wala ànd ak lëndëm wattiini ak ban ba tey nee boole timis ak gee ci kaw ak jàppandal mooy bu fekkee ñu timis fekk asamaan saa ngi taw mbaa ñu mel bu ko masaa mel moom dana taw taw du waaye bu ko masaa mel dana taw kon daañu mayee ñu boole timis ak gee julli timis fi saasa julli gee fa saasa ba tey bu fekkee tawut waaye yoon mi ngay aw dem jàkk ji dafa lëndëm ba noppi nag suuf si def ban boo xam ne boo ci dëggee si daal di summiku tawut waaye yoon wi jëm jàkk ji dafa lëndëm te it am na ban ci yoon wi su boobaa daañu may bu ngeen jullee timis far ci sësaléegee benn yoon ñibbi rek benn yoon taay dem jul siwaat ci géej gi laa ma xam julumat du jaag yoonu ànd ak lëndëm wax daa moom rek waa lëndëm mu kese moom nee nañ du tax a boole timis waaw foo fekkee daal ndum waaye ban nekku fa kon doo sañ a boole timis ak gee ngir loolu wa fi jam yi nekk na ci booleem li teen ngir ban wax du moom rek xawlaani ñaar xawlaani yaari wax mashhuraani yu ñu siiwal dafa wax ne bu fekkee ne ban rek moo nekk ci yoon wi ci boo dee julli ji waaye lëndamut tëwut banub kese rek la buy summi dàll yi nga xam ne boo ci dee dox say daal di summi ko ndax loolu sañes na sañes naa tax ñu boole timis ak gee wala déet am na yaari wax yoo xam ne bu ci nekk siiw na waaye bu gën a wóor mooy déedéet banub kese moom mënees na koo muñ du aajowoo ñu ci tax ñu boole timis ak gee sifatu jam ci melaw boole nga li zalika ñeel loole añu addina mooy mu noddu lil maxribi ñeel ci kaw soror ba awal waqtihaa ci njëlbeen waxtoom wayu axira te mu koy yeexe te mu yeexe rek salaataha julleem nga xalilan tuuti su ma yu addina topp dana nodd lil hichaay ñeel gee fii saxanil masjidi ci biir jàkk ja adana nodd mun xafidan guy aju suufee ah nee na melo boole gi yomb na maanaam dañu noddul timis saa yu jotee rek ñu nodd ko te mën nañ koo yëkkati ñu ko daan yëkkatee mu xumb bu dee rajo mënees naa jël rajo bi muy haut-parleur yi mu jëm ci kaw ñëpp di ko dégg su ko defee ñu xaw ko yéexi bañ a julli fa saa sa ndax ku bëgg ànd ci julli gi daal di mën a koo fekke si daal di mën a ñëw fekke si ko su ko defee daal koy julli moom timis nag bu noppee daal noddal gee nodd gu woyof bu dee rajo nañ bàyyi rajo bi ndax xam nga bu ñu noddaatee dañuy defee ne kon timis gu njëkk njuumte la woon mbaa gee daa jot te fekk na gee jotul dañ koy bëgg a booleeg timis rek kon dañ koy nodd ci biir jàkka ja te buñ ko yëkkati bu dee rajo am na buñ ko def ci rajo suma yu sal loona xaa topp danañu ko julli xam la max yi bi safax yi njëkk faa dugg safax suma yan salifoona topp danañu wëlbatiku su ko defee ñu noppee timis daal julli gee gi daal ñibbi yoon te fekk gee jotagut mooy nañ gaaw def ko balaa gee jot ndax bu ñu fa xaaree ba gee jot leen fa ñu war koo baamu ndax dañoo bëggoon ñu gaaw ñibbi benn yoon ñu far fa xaar ba gee jotu leen fa su boobaa nag kon faaw ñu baamu gee ga wala yu salloona duñu julli al wetar wetar illaa baax dama xi bi shafaq dara ci gannaaw waaw nee na nag yooyu jamono bi ñu boolee timis ak gee nga xam ne gee julli nañ ko ay waxtoom jotagut buñ wetar fa saasa wetar ma bala ñu koy def nañ bàyyi ba shafaq fàddu assunanu sunna ya al mu akkalatu ya duñ feddali mina ci julli yi ñeent la maanaam julli yi nga xam ne julli sunna di sunna yuñ feddali ñeent la al ula ba ci jëkk waxiyate moom aw kaduha mooy gën jaa feddali ko seen maanaam moo ci gën a dëgër al witru mooy wetar benn ràkk boobu ñu wax wetar al witru tool lay te benn ràkk moo tax mboolem boo weesoo julli farata yi moom moo ci gën a dëgër waxiya moom rakkaatun ab rakk la waaxidatun bu di benn benn rakk dong la waaye doxul dina tàbbi waxtuha waxtoom al ixtiyaar yi way ko jóg tànn bil faraax yi ca noppi ga min salaatil xisha yi ci julli gee al axirati gi aju mujj maanaam boo jullee gee ba noppi te fekk dangay nga julli gee mu jot ndax bu dee gee boole timis rek teel ko julli te jotut du tax nga mën a wetar fi saasa day fekk muy gee goo xam ne ba nga ko julli fekk na waxtoom jot su boobaa boo ci noppee rek waxtu wetar foofu la tàmbalee muxtaaram muxtaaram dana sar nag ba fajar fenk bu bu fajar fenkee daroori yoom tàmbalee foofu daal la wax daroori yoom fan la yem ba yekkoon dana nekk mas boo xam di lu ñu jiitoo bi safin ci tollun tollun mooy ñaari rakka mun fasilin bi aji tàggalikoo xanaa walis ko bi salaamin cib salmal wetar mooy sunna si waaye dañu bëgg lu néew néew ñaari rakka jiitu ko nga jekki-jekki def ko moom dong te dara jiitu ko tàmmuñ ko dangay def ñaari rakka taayu sëlmal door ko indi benn rakk wetar boobu nag wa yustahab bu def na sopp añ yaqara mu jàng fi rakk xati ci rakk ba alwala ba jëkk mina a ci safa baxdal fatihati ci gannaaw fatiha bi sabbi hisma rabbikal a'la ci sabbi hisma rabbikal a'la wa fi rakk xati ci rakk ba athaniyati bi aj ñaareel baxdal fatihati ci gannaaw fatiha bi qul ya ayyuhal kaafiruun ci qul ya al kaafiruun wa fi rakk xat witri ñu sopp nga jàng ci rakk wetar bi qul huwallahu ahad ci qul huwallahu ahad wal muxawwidatayni ak yaari xul ahmada yi nee na bu fekkee da ngay def saxaar wetar ñaari ràkk dong am wetar kon dañuy bëgg ñaar ràkk ñu moom ràkk bu jëkk nga jàng ca fatiha ak sabbisma ràkkam ñaari nga jàng ca fatiha ak xul yaayu kaafiroon dal taayu sëlmal jugal andi benn ràkk mu wetar nag nga jàng ca gannaaw fatiha xul wallahu ak fàll xig naasi amoon nasiya ku fàtte alwitra witar aw naam wala mu nelaw xan walis ko su mastay ko fa topp mu yeewu waqat baqiya te des li tulooxi sam si ñeel fenku jant miqdaaru rakxatin kem benn ràkka aw rakxatin wala ñaari rakk fey na fa naka moom wetru ko dana bàyyi alwitra witar wa yu salli te muy julli asubha suba nee na soo fàttee witar wala nga nelaw ba biddanti waaye ba ngay yeewu sa digganteeg jant bi fenk benn rakkaa fa xaj wala ñaar kon yooyu jamono kon wetaral na la boobu bis ndax ndegam benn rakk moo la ñaar dañ koy moomali suba xam nga wax du suba nga nekk ndax da nga ne sa diggante jant bi fenk te jub te bu jant bi fenkee suba lépp jeex kon nag lu des dañ koy moomali suba nga julli suba te bàyyi wetar mu raw la tey ba ëllëgati ndax kenn du ko fay moom wa in tasax dem yaatu na al waxtu waxtu li salaasi rakaxaatin ñeel ñett rakk aw arbaxin wala ñeent fa innahu naka moom yu sal yu dee julli al wetar wetar suma subha topp suba waaw ah, nee na bu fekkee ba nga yeewu sa diggante jant bi fenk may su fee julli ñett rakk mbaa ñeent ba dañ koo fonk dañ koy julli moom moom dong muy benn nga teg ci suba nag muy ñaar nga bàyyee ci des nga bàyyi safa bàyyi ñaar rakkay fajar wa in it tasaxa ndem yaatu na li xam si rakaxaati ñeel juróomi rakk salla mu julli ak safan safa wala witra ak wetar wa suba ak suba wa tarakate mu bàyyi alfajara fajar maanaam ba nga yeewoo dañoo xool sa digganteeg jant bi fenk ñu mën fee julli juróomi rakk dañuy wax ne la kon wetar dañ koy fonk lool da ngay julli safa muy ñaar nga teg ci wetar muy ñett nga teg ci suba nag muy juróom yi nga waxoon nga bàyyi fajar nag fajar nga koy bàyyi ba jant bi fenk jant bi fenkee ba naa fi naafile dagan mooy ba yëkkatiwu ci sa xoolu bët ñetti meetar dafa tàmbalee ba tispaar mën nga ko fee fay moom ñaar rakkay fajar wa init tasan dem yaatu na li sabahi rakka xaati ñeel juróom-ñaari rakka salla mu dal di julli ak safan safa wala witara ak fajar ak fajar ak suba maanaam bu fekkee fa nga yeewoo ak fa jant bi fenk ba des julli juróom-ñaari rakk kon ñoom ñëpp xaj nañ ci dangay julli safa teg ci wetar mu daal nekk ñett nga teg ci ñaar rakk yi fajar mu daal doon juróom nga teg ci ñaar rakk yi suba mu juróom-ñaar ak taaniyatu ñaareel bi salaatul xiid yi mooy julli jaari xiid yi wax ya moom sunnatu sunna la mu ak kadatun suñ suñ feddali fii xaq yi moom ci àq koo xam ne tel sa dana ko war al jumuxatu julli nee na julli korité mbaa tabaski sunna su dëgër la moom it waaye nag kam doon suñu ci moom mooy koo xam ne julli jumaa war na ko ku julli juma war nag mooy koo xam ne gor la te góor la te mu kàllaf la te sax foofa loolu kooku lay war ku mel ba tey moom lañu wax ne julli korité mbaa tabaski ci moom mustahabatun lu ñu sopp nag fi xaqil abdi ci jaam wal musaafiri ak aji tukki wal marati jigéen koo xam ne moom julli juma waru ko dañuy sopp ci moom rek julli korite mbaa tabaski kooku nag mooy ku mel ne jaam waru ko moom julli jumaa jigi jigéen noonu kuy tukki noonu kon ñooñu dañoo sopp ñoom rek jullit xiit wa sifatu xaa meloom wa rakxataan ñaari rakk la bi xëyri azaanin ci lu dul nodd wala iqaamat du caageem liqaam moom nee na rakk dong la amul nodd amul liqaam ndax farata rek mooy am nodd mbaa liqaam yu kabbiru dana kàbbar fil ula ci ràkk bu njëkk ba'da takbiratil ihraami ci gannaaw kàbbaru armal sitta takbiraati juróom benn kàbbar wa fi saaniyati ci boobu ñaareel xamsa takbiraati juróomi kàbbar ba'da takbiratil qiyaami ci gannaaw kàbbaru jóg ba nee na bu dee korite ba gi boo ne allah akbar muy armal ci ràkk bu njëkk bi da ci tegaat juróom benn daal doon juróom ñaar ak xam ñaareel ba xam nga boo siggee ca sujootu ñaareel ba da nga wax allah akbar gannaaw boo weesoo boobu da nga ci tegaat juróom bu ko defee mu juróom benn kabar bu kabar jeexee nga door a tàmbalee jàng faatiha doo caat ak saaro ci ràkka bu mën di doon wala yustahab bi deful sopp rafu njëdeen yëkkati yaari loxo ya fii shay'in ci dara mu ne takbir yi ci kabar siwa takbiratul ihram bi ndaray kabar armal bu dee fiqu maalik moom allahu akbar ji ngay armale képp la ñu sopp nga yëkkati say loxo boole ci waaye ci des dañoo dugg rek nga wax allahu akbar soo làmmiñ te bañ a yëkkati waale loxo yi wa in nasiya ndeem fàtte na ak takbira kàbbar rajax mu dellu ilayhi jëm ci moom maalum yaddax li feeg tegut yedday yaari loxoom ala rukbatayhi ñaari bëri woom maanaam jàppal ne allahu akbar yi ngay wax ne boo dee julli xiit benn rak benn allahu akbar bu ci ne benn kàbbar bu ci ne sunu su dëgër la boo ci bàyyee benn dong war koo sujootal li wax ni nag mooy bu fekkee da nga fàtte kàbbar yi mbaa nga fàtte ca benn waaye laata nga jàpp ci say wóom ma laata ngay sëgg teg say loxo ci say bëti wóom fàttaliku nga ko kon na ngay dellu defaat kàbbar yi ñu sopp nga baamuwaat njàng ma bala ngaa sujjo bala ngaa rukkoo su baa nag boo sajati tam sujjoot ba xam ne salaam bi gannaaw salma maanaam ndegam bi nga fàttaliku kàbbar yi ba def ko baamuwaat nga njàng mi kon danañ nga sujjoot ba xam ne salaam ndax mel na ko yokk bu fekkee xas nga jàpp ci seen moom na bàyyi da ngay jàpp ni bàyyi nga sunna su dëgër su ko defee nag nga sujjoot xam salaam kon xawlu salaam ngay sujjoot wa yustahabu def na sopp al jahru biral bi takbir ci kabar ga maanaam kabar bi nga wax ci kaw lu ñu sopp la bëgguñu nga wax ci suuf wa tatayub ak gëttu dat ko lañ boo am rek baax na sopp nañ ko ci korite ak tabaski wa tazayun ak waaje bi siyaa bi ci yére al jadidati yi aji yees li man ñeel ko nga xam ne yàq jul dana attan yàq jul xale yaa ci ñoom ku ma a am yére yu yees ci korite mbaa tabaski ñu sopp nga sol ko doonte sax julli ja la niki sax bu dee koo xam du julli ji nekk ko amee mbërëg mbaa wasin du tee màggal bis beeg fonk ko ak feeñal taaru lislaam mën a tax ñu sopp mu wàcc boobaa lu gën a rafet rek moo gën moo weex am ñàkk weex ci yam war na joom sopp nañ delloo min tarixin ci aw yoon xëyri lët yi wudul nga xam ne jaa dikkee woon na min xaatukee ca moom sopp nañ yoon wa nga awoon ba ngay dem bay wàññi ko aw ci weneen wal fitru sopp nañu dog maanaam mos dara xabla rabaax njëkk dem ilal musalla jëm ci jullikaay wa fii feetu korite wa taaxiruhu ak mu yeexeem fi xii di naxari ci feetu tabaski nee na bu fekkee korite la boo xëyee sopp nañ nga mos dara la ngaa dem ci jullikaay ba moo ne ne kon bañ la digalee nga woor woor nga bañ la digalee tey ji wori wori nga ci bañ nga xëy rek mel ne ku woor ba tey boo mënee lekk ay tàndarma tam tool moo ci gën bu fekkee amoo ko nag nga góox ay góoxi ndox rek door a dem ca jullikaay ba bu wutee tabaski wala tabaski dañuy sopp boo xëyee mel ne ku woor ba a mos dara boo dikkee na ba ren tabaski bi ba mën a jot ca resoo nag nga doge ca resoo loolu sopp nañ ko wat takk bi di sopp nañu kàbbar fii ci feetuk tabaski xaqiba xamsa xasharata ci gannaaw fukk ak juróom farilal nañ ci ay farata awaluha aju jëkk seen jufru yawmi naxri mooy tisbaari wa axiruha aju mujj seen subul bis ba raabi bay aju ñeenteel min xucca moom nee am na kàbbar yu ñuy wax kàbbar yi mu dee jamonoy tabaski dañ ko ci sopp bu ñu nee tey jii bis may waxee tey moom talaata la kon li tàmbalee tisbaar talaata ji bu fekkoon tey mooy ki li ci tàmbalee nga tàmbalee ci wàññi ni talaata àllarba alxames ajjuma ajjuma mooy ñeenteelu ba ajjuma boo jullee suba ba def kàbbar yi foofu la yem waaye diggante boobu julli goo fi julli rek boo sëlmalee nga wax kàbbar yi sopp nañ ko bala ngaa tasab sax lay doon bala ngaa tasab wa sifatu takbir melaw kàbbar gana mooy nga ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar muy ñett yoon nga teg ci laa ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu noonu la waxe ne waaye nga tey teyluwaat ko maanaam ñett li bañ gisoon ci risaala te moo gën a siiw mooy benn nga ne